alhamdulilah am nañu yàlla nangul jàkka ji ñu jógee moom la ñuy tuddee jàkkaay am ummil muminina aïchatu radiallahu taala anha ñu ngi doon waxtaanee sayyidatuna Khadija balaa ñoo agsi sayyidatuna Khadija waxtaanee ci moom <laughs> mooy waxtaanee lislaam ndax lépp lislaam nga ko fee fekk lépp yonentu sallallahu wa sallam da ko fee fekk mu nekk nag jigéen joo xam ne exemple la ci lu ne xadijatu jàngal nañu ne góor dafay tànn soxna waaye jigéen nit dafa war a tànn jëkkër ndax ndey xadijatu bi nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam am na ñaar fukki at ak juróom ñëw ci moom di yaxantu yaxantu mooy commerce booba xale lu góoru Makka ku ci am at yooyu dangay ngay ñëw ci Xadijatu ba ku mel ni moom te néew nga ku meloon ni moom mu di la jox marchandise yóbbu Makka Xadijatu nag bi mu boo bi mu joxee yonentu marchandise daf ko booleeg jaamam bu ñuy tuddee Maysaratu ne ko na ko ko observer Maysaratu gis ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam suñuy dox ci mbedd mi tàngaay bi di dal ci bopp nit ñi dafa mel ni dafa benn niir bu koy tiim moom di ko xelal di ko di ko keral gis na it ne fu ñu demee ci ker bu ñëpp toogee yonentu moom bu xuus mukk jotaay dafay ñëw rek toog ca fekk ba mu nemmeeku ne fu yonentu sallallahu alayhi wa sallam toog ker ga dafay mel ni dafay tuxu ñëw ko ba demee it ci commerce ma ca Cham toog na ci genn garab ab làbbee ñëw ne leen kii mooy kat ñu ne ko mooy diw diw ak diw mu daal di wax ne kii de mooy yonentu xeet bu mujj yi gi ab yonent rek a ciy topp te bi Isa jógee kenn togg ci Quraysh yi ak ñañ daan jaayanteel dañ daan gëm ci xërëñ xërëm yi ngir ñu gëm leen billaata wal uzza ko bëggee jaay ndax li may jaayee baax na wala noonu la ci laataak uzza yonentu ne ko man duma gëñ ci laataak uzza man ci yàlla lay gëñ loolu nag may saratu bind ko ba mu ñëwee mu defal xadijatu rapport moo ko ko waxoon xadijatu xam ne góor gi mu doon wut ci àdduna mu ngi nii moo nu muy def nag ba jot ci mu daal di waxtaan ak nafisatu ab xaritam la woon bi ñëwee ci nafisatu ne ko man de gis naa ci Muhammad loo xam ne gisuma ko ci benn góor ci góor yi Quraysh bu dee ci dëkkum la bu dee ci bokk ci bokk euh, mbokk gu baax ak gañe gu baax bu dee ci tab bu dee ci ñàkk jaaxaan te dégg nga li sama xale bi wax ci tukkeem bi ak li xew ci digganteem ak làbbe yi man daal sama xol mi ngi bëgg a dogu ne kii de mooy yonentu xeet bi boobu yonentu ñaar fukki at ak juróom rek la am xadijatu gis ci moom loolu xadijatu daal di wax nafisatu lim bëgg nafisatu dem ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ne ko xadijatu dee daf laa bëgg ndax sa jikko yu rafet yi ak sa baax ak fi nga bokk ak ni nga mel yonentu sallallahu alayhi wa sallam d'accord ci daal di waxtaan ak ay baayam baayam mi ko jur na fi waaye Abu Talib mi ko yaran fi Abbas ak Hamza toog fi ñoom sax ñoo ñaani bañ demee nag Abu Talib xutba nga ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu def ci njaboot ñoo ñu boole ci njabootu Ibrahima ak ci mbayam Ismaila ñu nekk ci giir maat nekk ci xeetu mudar mu jagleel ñu gardeel ko néegam bu tedd bi di kaaba gi di ko gouverneel xaramam bu tedd bi le mu jox ñu néeg boo xam ne ñëpp koy aj si mu nekk xaram ju wóor mu boole def ñu ñu yilif nit ñi ba mu paree mu ne inna ibna axi muhammadan sama doomi mbokk mi muhammad sallallahu alayhi wa sallam doomi abdullahi amul kenn kuñ koy tollaleeg ci quraish moo la gën moo la ëpp sharaf moo la ëpp noblesse moo la ëpp ngëneel mu ne su fekkee ne alalam bariwut it mu ne alal ker la rek guy dëñ mbir la muy tuxu luñ la abal rek looy delloo tey mu nekk ak yow suba mu nekk ak diw kii dafay womal tey suba mu ñàkk kii ñàkk tey suba mu womal noonu la yëf demee mu ne gannaaw loolu nag maa ngi leen di waatal ci yàlla ne mbir mu réen ci moom xemem na nag xadijatu te xadijatu it na ko <coughs> lépp loo xam ne nag bëgg ngeen ko ci cant gàll leen ma ko ci la waraqatu tontu waraqatu bu ngeen fàttalikoo doomi mbokkam xadijatu la bés bi yàlla di yónni yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee ca xurwa ak xaal ba ñu bëri foog ne ragal a tax fekk ragal du ragal lam gis waaye ndax mission bu rëy bii dina ko mën a sottal yàlla yónni la loolu lu rëy la mbokk boobu moom xadijatu ci moom la waraqatu mii la ko yónni indi woon ndax waraqatu daf daan jàng téere yu njëkk ya ba ko yonentu nettalee mu ne ko ah la ñëwaloon Moussa la ñëwal maa ngi doon ngéeju bés biñ lay génnee fekk ma fi mu ne ko kon danañ ma génne mu ne ko li nga indi kenn mosu ko indil ay mbokkam loolu génne nañ ko gannaaw ga waraqatu dee waaye ci sëyu xadijatu moom moo tontu Abu Talib ba sëy ba am ñu ne moom moom maye waaye Abu Taalib ne ko suma señoon bàyyi te xam <coughs> bokk ci am na sax ñu ne wax ba ko maye baayam am na ñu ne Wuhayb xadijatu nag radiallahu tabaraka wa taala anhu nekk ak yonent bu nekk bu gën rafet xam nga wax nañ sànq ne Abu Talib wax na ko wax na ne alal ji di bëriwul waaye alal du dara waaye seetal miskin bi ñaata la cane Xadijat ñaar fukki gëlëm la ko cane ah, te gëlëm fi mu ne nii tey boo ko doon xayma danga ci million miskin bi de loolu la cane Xadijat moo tax jigéen dara jomb ko qintaar Seydina Omar ba mu nar a can jigéen a jot ne ko yàlla ne xintaar yow nga bëgg a limité li ñuy jox Seydina Omar ne ngel la Omar jigéen ñi sax la gën a dégg noonu la Seydina Omar meloon bu yàlla waxee rek dootul gisati boppam te moo ni meloon ci góor ñi kenn melu ko woon ci góor ñi ñaari mètre la doon la la la woon moom Seydina Omar waaw xadijatu moomu nag gannaawam gën a diggu ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndey Aïchatu mi nga xam ne moom lañ demoon ci jàkkaab ji moo lu tax ñu tuddee jàkka ji jàkka Aïchatu ndax Aïchatu ko tabax ah Aïchatu tabaxut ko biñ koy tabax sax fekku ko fi déedéet barab bi Tan'im lañ ko daan woowee mooy boo génnee Makka dafa am li ñuy wax xaram bi xaram bi du jàkka ji rek makk yëpp xaram la mooy dafa sacré sacré the sacredness of makk nag dafa am fu yem dafa am ay dafa am frontière yoo xam ne fa la cellte gi yem li nga xam ne moo bokk ci makk officiellement soo bëggee umra nag fa nga génn ba foofa boo fi gënoon a jege mooy barab bi ñu doon wax Tan'im ca jamono jooja day Aysatu nag bi ñuy aj liy jàpp jigéen jàpp ko ci li muy gis ci weer wu nekk bañ paree mu ne ñëpp a ngi delloog aj ak umra man may dellook aj rek yonentu daal di wax Abdourahman freeru Aysatu àndal ak sa sœur ngeen dem Tan'im mu armal ñëw umra si fi mu armalee woon nag lañ tabax jàkk gannaaw ga tuddee ko ko muy jàkk ummul mu'minin Ndeye Aïcha looloo indi jàkk ci moo tax kuy armalati fekk yaa ngi biir makk nga génn dem ba ca fa ndey Aysatu armale woon Aysatu nag yàlla defal ko jagle yu rëy moom it yonentu daan na wax ne jële leen seen genn wàllu diine ci ndaw su xonq si li Aysatu jigéen ñëpp moo ci gënoon a xam bokk gi Quraysh bokk lu tax parce que bàyyee ma ko gënoon a xam te mokkal na ko jàngal na ko médecine kenn melu ci woon ci moom ndax ku mara nara ak masa am médecine dikk seet si yonent bi buy gis looy li nga def rek buy pare booy pare mu mën ko noonu la ko yàlla may bokk na ci saxaaba yi nga xam ne liñ mokkal ci xadis yonent bi gën a bëri juróom-ñaar ñi gën a bëri la xadis ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam day Aïcha ci la bokk gannaaw yonent bi bëri na bu saxaaba yi amaan laaj ci diine moom lañ koy laaj kon jigéen du wax ne man jigéen laa rek loolu wala fa koy wax waaye wax ju bon la ndax jigéen mooy genn wàllu góor góor mooy genn wàllu jigéen ñoo yem ci yàlla donte niroo bu ñu maanaam ils sont égaux mais ils ne sont pas identiques ñi waxtaanee égalité nag ak parité dégguñu boobu wala dégg nañ ko sax ak naafeq la ndax man gisaguma ba léegi NBA ñu boole LeBron James ak jigéen ñi xam nga physiquement yemuñu moo tax kon ils sont pas identiques même si que ñoom ñëpp ñoo yem ci valeur ci yàlla subhanahu wa taala day Aïchatu tabaraka wa taala anha bokk na ci li ko yàlla jagleel néegam la yonentu sallallahu alayhi wa sallam génne àdduna nee na ci sama kaw la génne àdduna sama tuflitam mujj a deseeg tuflitam sallallahu alayhi wa sallam bi génne àdduna te yonentu waxoon na ne ab yonentu fu mu dee rek lañ koy suul kenn du ko toxal moo tax ñu denc ko néeg ndey Aïcha terewul ndey Aïcha mu ngi nekk ci néeg bi bi baayam gaañoo Seydina Aboubacar ñu denc ko ci wetu yonantu sallallahu alayhi wa terewul ndey Aïcha te ngi dëkk ak ñoom mu des espace nag moom jàpp ne bu fi jógee dañ ko fay denc waaye Seydina Omar ñaan ko bu demee bay bëgg a faatu mu ne dem leen ci Aïcha bu leen ko wax amirul muminina nee na tey du ma amirul kenn kenn laa ci julli ji rek ne ko sa doom moo lay ñaan yu denc ko ci diggéen denc ci wetu ñaari xaritam su nangoo baax na su nanguwut ngeen yóbbu ma fi yóbbu julliti Abdullahi ibnu Omar dem mu ah sama bopp de laa ko dencaloon waaye jox naa ko Omar balaa moo gaañu mu ne mën naa am kersaa tax mu bàyyee ma ko rek ak li may dund mu gis ma rus ma balaa ngeen ma faa denc bu ma dee na ngeen demaat laa ko su ne waaw ngeen soog ma faa denc moo tax yonent salaay fi ko denc Aboubacar moom lañ denc bopp Aboubacar tolloog mbaggam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bopp Seydina Omar tolloog mbaggam Seydina Aboubacar radiallahu taala waxtaan ci ñoom ñëpp waxtaan wu yaatoo yaatu xëy na jamono dana ko indi waaye li ñu loon rek mooy barab buñ dem ñu xam le minimum ci historique bu barab boobu léegi tey ñu àgg yal na yàlla àggale suñuy muraado ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nangu aj gi nangu umra gi nangu ñaan yi fi ñaan yëpp nangul képp koo xam ne ni ñaanloo nañu danañ yàlla boole defaral suñu biir ak suñu biti danañ yàlla defaral suñu biir ak suñu biti danañ yàlla may yàlla yaa rabbi هذا وصلى الله على سيدنا محمد